L'Air TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. yaa jaaral masjid muy wote bu ñuy wo dekkando jakkay. Manam ñi dekk ci wetu jakkay yi te ay julit. nu bayyi xel bu baax baax ne ngëm ak nit boo xam ni day wér kooku day borom bi yaxal na ko jëme ko ci ñiy dem ci jàkka yi mooy dëkkandoo jàkka yi ñi dëkk ci karte yi am jàkka walla ñi sësoo ak jàkka moo xam dañuy liggéey dañuy commerce dañuy yaxantu walla ay manœuvre lañ walla ouvrier ñoom ñëpp ay dëkkandoo jàkka lañ borom bi taala wa tabaarak di leen woo ci ñuy dundal jàkka moo tax borom bi wax ci téereem bu tedd bi ne ñi nga xam ne ñooy dundal jàkka yàlla yi nee na mooy ñi gëm kon yàlla ñi muy woowee ñi gëm mooy ñi dëkk ci koñ yi dëkk ak jàkka te di fa dem waaye di fa jullee nee na ñooñu ñoo gëm yàlla ñoo gëm bis moo taxit ñu ngay taxawal julli di joxe agaka te duñu ragal ku dul yàlla jullit bu fekkee ragalul ku dul yàlla dem jàkka du nekk problème borom bi nee na ñooñu di dem jàkka te mu seedeen leen ngëm yàlla te gëm bis nee na ñooñu di taxawal julli fa asa ulaika an yakunu min al nee na ñooñu day mën nañoo bokk ci ñiy jub yàlla nañ ci yàlla boole jullit boo xam ni bégteem la koy bégloo mooy mu dugg ci néegu yàlla dugg ci bërëb yàlla yi taala wa tabaarak fas yéenee dundal jàkka ji dundal jàkka nag mbokk yi ci ñaari mbir la dinañ ko dundal ci ñoŋal ko di ko setal waaye di ko tabax soo gisee luñ fa war a defar nga defar ko boo ko mënee soo gisee luñ fa war a mottali nga mottali ko soo ko mënee waaye bokk na ci it boo mënee tabax jàkka nga def ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku tabaxal yàlla néeg ci néeg yi donte tàggu picc la tollool borom bi nee na dana la ko fayee àjjana yàlla nan ko yàlla may kon bokk na ci it sàmm jàkka mooy di fa jullee waxtu wi juróom su fekkee ni waxtu wi juróom munoo ko faa jullee ndax da ngay liggéeyi bërëb ya ngay liggéeyee am na julleekaay mën nga faa jullee ji waaye boo ñibbisee waxtu yi tolloog yow te jàkka ja di ko woote ne war nga fay dem di fa jullee di fa jéem a jàngaale xam-xam ndax jàkka yi université la bërëb la yoo xam ni ca la defaroo fii ci sunu àdduna waaye fa la defaroo ci sunu àllaaxira yow mbokk jullit yow dëkkandoo yow mi dëkk bërëb bi gën ci bërëb yi yow lay waxal yow mi dëkk ak néegu yàlla waa yow miy dégg nodd saa bu ñu noddee nga dëkk ci koñ bi lu nekk jaral la nga jóg ngir koñ bi te bërëb nekk fa bu yàlla moom sa tànk du fa dem xalaatoo dox ca lu koy defar yow boo nee da defar koñ boobu it ak ceytaane moo nekk ci yow waaye dëgg amut ndax bërëb bu ñuy mën a defar ci koñ jàkka moo fa jiitu mbokk yi jàkka néegu yàlla la yaa ngi kaasal sa kër yaa ngi kaasal sa mbedd yaa ngi kaasal sa néeg lu la jege nga coow lu xew nga yuuxu yàlla nee na la waa man am naa fi am naa fi néeg nek bobu bu yalla doon gane ci doomu adama foofu lay dal wa est-ce que bobu waru la gëna lu taxaw ci kaw suuf waaye yow bu fekkee ni da nga ni ab jullit nga te ngay wote wo ni ab jullit nga ya man tad'i annaka muslim aminu billah da ngay wote wo ni jullit nga waxtu wu nek nga dégg nodd hayya ala salaa mooy daw leen julli loolu képp ku koy dégg rek engagé saa boo déggee hayya ala salaa yow la ñuy waxal amatoo lay saa boo déggee hayya ala al kaay leen ci mbég mi yàlla moo woote kaay leen bég jullit lan moo ko war a bégloo lu dul julli lu dul jaamu yàlla lu dul dem ci néegu yàlla tey ñi ni ñoom nga gëm soo amoon di dajeeg ñoom dugg ci seen kër ni muy réyee ci yow ni muy réyee ci yow nga jékki ba ci yàgg xalif généralu kër gi nga bokk ne la invité naa la nga ñëw añ ak man xoolaloon ni mu koy réyalee koñ bi kenn du dégg xalif bi moo ma invité xalif bi moo ma dalal man koy nàngam gars yi naan ko yow texe nga yow àgg nga yow nàngam nga te lu gën a rëy loolu am ci sa koñ muy jàkka faale woo jàkk ci est la ngay wootee dëgg la bu layee mukk nag ne murid la non bu lay de bu layee ne tiijaan la li tax ma wax ko nii dama ma sa wax benn wax ndeysaan waaye bu dangaam non Oumar Sall waxal lu neex mais murid moom bu leen tudd ma ne ko yow da nga dof yow kenn nga ci murid yi tuuti nga ci am moomuloo murid yi waaye xool leen tey ngay woote woo ne yow murid nga doo dem jàkk yow ana sa murite bu dee dëgg la ci yow ngay woote woo ne tiijaan nga xanaa xamoo avant murit ak tiijaan di ñëw islam moo fi nekkoon jullit moo fi nekk kon muslim moo ëpp doole murit muslim moo ëpp doole tiijaan muslim moo ëpp doole xaadir kenn musuma dégg may xutba wala may wax tudd tur yi ma tudd tey mais dafa bu ngeen gisee dara dara moo tax li tax ma di ko tudd damay wan ñiy wootewu di coow ni moomuñu ko kër yooyu moomuñu ko ñépp ñoo ci yem mais li ma bëgg a wax mooy bul woote woo ni murit laa nga dëkk jàkka te doo dem jàkk su musique tëggee nga fecc lu bon lu ne yaa koy def ci koñ bi lu yées lu ne yaa koy def ci koñ bi su nu waxee ku dul julli ku dul jaamu yàlla nga ne mi ngi dal murit yi mi ngi dal tiijaan mais yow seytaane piir nga yow bu ñuy woo yow caatu iblis nga parce que ku bon rek mooy doxalee lu mel noonu tey murit bi ngay wootewu ka ko nekk ay jumaa lañuy ñuy tabax moo xam dañuy julli wala julliwul pourquoi loolu ñuy woote yow nga di ko woote woo nga dëkk ci koñ bi jàkka ji ne ci koñ bi doo fa dem dafa nekk naa murit daf la tee dem jàkk wala nga ni jàkka ji non jàkka ibaadu la quoi man duma fa dem affaire appartenance yu ñàkk fayda yooyu nga nekk tiijaan ne man jàkk ji jàkk tiijaan la man du ma fa dem loolu fan la ko yàlla jàngalee fan la ko alquran waxee fan la ko sunna waxee ak ah, nga laayeen la jullit nga woon maa kitaabu lan lañ lay laaj mooy ana sa téere sa téere téere ba ñu lay laaj ban la xam nga ko mooy alquran bi nga xam ni sa sëriñ way na ko wayati ko bëgg ko ba ñuy wax ñu daa fonk téere bi yow nga ñëw faalewoo téere bi kon mbokki jullit yi ay jullit du ñuy naxante dañuy waxante dëgg te yeewante ngal la waay bul jàpp mukk seytaane nekk ci yow nga di ko layee noo man duma fa jullee parce que bokkuñu lu ñu gëm mais yow yow war nañ la xoolaat yéen ngeen nekk ay jullit bokku leen lu ngeen gëm ana yàlla bokku leen ana yonente bi bokku leen ko ana alquran bokku leen ko ana diine bokku leen ko nga jël ñeent yi ëpp doole sànni ko jël lu ñàkk solo lu ñëw ci ginnaaw loo xamante ne ci ginnaaw du ñëw muy man murid laa wala kii jan la wala laayan la islam nekk na fi ay siècle yii doo ko ñëw boo bëggee jël li mujj nag di ko xeexee li njëkk bu ñuy wër dof ci yow la ñuy dem ndax muusuloo ndax muusuloo mbokk jullit yi ki gëm yàlla nekk dëkkandoo jàkka danga war a dem ca jàkka ja même boo jubóolul sax imam ba boo jubóowul ak waa jàkka ja kenn du la laaj ne lan moo tax jubóowoo ak imam ba kenn du la lan moo tax jubóowul ak muazzin ba déedéet xam nga lu ñu lay laaj lan moo la tee dem jàkk yéen xale yu góor yi lu leen di tee dem jàkk lan la leen jàkka def nit boo xam ni moo gën a tedd ci kaw suuf mbokk yi borom bi nee na fii buyuutin adina allahu an turfaa wa yudkara fii asmu yàlla nee na ay kër ngi nii man yàlla subhanahu wa taala man maa digle ñu yëkkati ko tabax ko ku am moyen tabaxal ku am karo indil ku am moket indil ku mën a cotiser cotiser wa yudkara fii hasmu ñu fay tudd turu borom bi allahu akbar sami allahu liman hamida di fa jàng alquran di fa def la diina bëgg yusabbihu lahu fiha bilguduwi wal asal di fa màggal yàlla di fa bàkk yàlla ci suba ya ak ngoon ya borom bi ne ñi ko mën <laughs> ay góor lañ de loolu ñi ko mën bëriwuñ bëri na kuy woote woo naan góor laa man ngant laa fekk ci islaam doo góor jigéen a la tane góor gu dul dem jàkka billaahi jigéen na la tane ndax jigéen day indisposé am ngànt jigéen bu demu jàkka kenn du ko xas waaye yow nga nekk sa biir kër toog di funki di yaatale lex te doo dem jàkka jigéen na la tane jigéen na la gën moo tax borom bi ne rijaal góor ñaango ñu ne ko yan góor mu ne laa tulhihim tijaara wala bayya an zikrillah góor ñi dëgg am commerce mënu leen a tee dem julli ji suñu doon jaay ba dégg noddu teg fa njaay suñu doon comptabiliser ba dégg nodd teg ko fa suñu doon liggéey ba dégg nodd teg ko fa ndax xam na ne milliards yi ñuy comptabiliser li ko gën a hayya ala al falah yàlla na kaay leen ma récompenser leen kaay leen ma bégloo leen nga sànni milliards ya sànni commerce ba sànni li nga doon comptabiliser nga daw ne lii lépp fii la ca may borom amul alal wala njaay wala lenn lu mën a def seen digganteeg tudd yàlla ak taxawal julli ak joxe azaka kon ñetti mbir a yu mag yeeg yu ndaw yi liggéeykat yi nee na dara ci kaw suuf mënu leen a tee julli mënu leen a tee tudd yàlla mënu leen a tee dugg ci jàkk xam nga lu tax ñu koy def yow dëkkandoo bi ndax xam nga ko yow jullit bi ndax xam nga ko ñu ne ko déedéet mu ne yaxaafuuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar li tax ñu bàyyi alal ja bàyyi lépp dégg noddu daw dafa am bis bu ñuy préparé te ragal ko allahu akbar yaxaafuuna yawman yaxaafuuna yawman ayu yawmin ayuha annas yawmun saqil ala alkafirina gayri yasir borom bi ne ne bis bu diis lool diis ci ñi daawul julli diis ci ñi daawul wooteewoo julli te duñu julli ñi daawul dem jàkka yaxaafuuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar ragal nañu bis boo xam ne dana ñëw xol yi wëlbatiku bët yi wëlbatiku borom bi dana xaasiatan absaaruhum tarhaquhum dilla seen bët buqeeku am toroxtaange lan moo tax daawuñu dem jàkk waay waay boolee du ma dem ci jàkk bi demal ba ca des bu fekkee rek jullit ngay woote woo yow demoo ci jàkka ma sàmba demal ca ma dem ba bu fekkee ma sàmba nga bëgg a indi mais demoo ci benn léegi da ngay laye man daw ma jàkk ma sàmba parce que imaam a tax julli newul ci yow naaféq moo nekk ci yow ndax bu fekkoon ni naaféq newul ci yow soo jiwluwul ci bii nga julli ci bee ñoo xam ne ah kii kat ngëm day doxal ngëm lay doxal waaye lan la bëgg a doxal indi lay di ko làqatoo làqatu yi ko làqatoo ci kanam yàlla ndax yàlla xam yépp borom bi nee li yajziyahum allahu ahsana ma amilu yàlla nee na danaa leen fay li gën a rafet ci liñ doon jëf li gën a rafet ci liñ doon jëf dara ëpp ci doole julli waxtu julli jot nga jóg da ngay nekk ci jàkk da ngay am da ngay nekk ci koñ da ngay am kër yi ñu bokk kenn ku nekk bokk na sa daayira boo xam ni soo ko ayee sikkar guddi sikkar bëccëg te néegu yàlla bi du la gis te dëkkandoo jàkk nga imam mën naa taxaw bu ragalee yàlla te ñeme siti yi ci koñ bi yëpp ñuy dugg ci jàkka ñu ah man de xam naa ko man moom xam naa ko te danaa wax la ma sëriñ sama sëriñ doon wax xaw ma maay njëkk dee xaw ma maay mujj dee waaye ku dul jullee ci jàkka ji te dëkk ci koñ bii bu ñu nee dee nga nañu la yóbbu fa nga yaakaar waaye bu ñu la indee fii ci morgu bii war laa jullee danaa taxaw ne kii daawul julli ku daawul julli duñu ko jullee loolu mooy dëgg ah, bu ñu naxante dem leen ci jàkka yi borom bi seede leen xale yi góor yi ndaw ñi yéen a ngi bëgg wërsëgu yàlla xéewalam te du ngeen julli mbokk yi xanaa xamoo ne yonente bi dafa ñaax nit ñi ñu sàmm jàkk di fa julli di julli julli mbooloo mbokk yi lan la yonent bi njëkk def bi mu gàddaaye lan ban projet la njëkk taxawal bi mu jógee màkka ñëw madina sonn lool ñu teel ko gëleemam ba gëleem gi dal yonent bi xalaatul tabax fu mu dëkk de ba mu agsee dañ koo aal fu mu dëkk li mu njëkk rëdd mooy jàkk wa anna al masajida ليس للمريدية ولا للتيجانية ديدل جاكي مريد مومكو تيجان مومكو لاين مومكو كنن مومكو المساجد لله قل إن كنت عبد الله عليك أن تحافظ على صلاة الجماعة في المساجد وفك جامو يالنا بدقو ورنك يو غي دم جاكي خلي قولي توزور دمي ركادي سما وقتين يين يين ياكاري يين islam yéena tey raayaam ana nan ngeen def ak julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bashiri almasaa'ina fi ddulami ila almasajidi binnuuri tammi yowma alqiyaama nee na borom bi nee na nañu bégal bashiri almasaa'ina fi ddulam nee na bégalal ñiy dox ci guddi yu lëndëm ngir julli jigéen seen kër sori wallahi ladi laa ilaha gayru am na ñuy jóge ci ginnaaw jéggi kër yu bari romb seeni morom ñëw di julle ci jàkka ji fajar am ñuy nelaw ñu tëj seen kër mën a ñëw julli wala ñu dem ci beneen jàkka julli fajar moom la borom bi ne yonente bi béglool ñiy dox bashiril mashaa'ina fi dulam ñiy dox ci lëndëm yi ilal masaajid bégal leen ne danañu am bi nuuri tàmmi yowmal qiyaama leer bu ma sëkk yowmal qiyaam boo ñàkkee boo amul sooy dekk yowmal qiyaam yaram bi yépp day leer allah lan moo tax fajar yi njël yi njël yi da ngaa bàyyi soxna si bàyyi liggéey bi bàyyi lépp dégg assalaatu xayrum min annawm nga tëb sangu waaj waaxu daw dem ca jàkka ja jullit yi yàlla nañu yàlla may mbégte moomu may ko suñuy doom waaye may ko mboolem jullit yi mbokk yi musiba bi gën a rëy ca dal jullit ñi tey mooy taxallufuhum an salaatil jumaa wal jullit ñi tey seen ñàkk dem julli ji ci jàkka ci julli mbooloo ak dem jumaa wallahi xutba kat dana taxaw di xutba ba première xutba bi jeex mu dugg deuxième bi bay waale jeex nit ñi commencé di ratatat di rot di ñëw ndeysaan loolu mbokk yi lu doy waar la nga fekk ñoo xam ne dañuy julli jumaa ba pare ñu ñëw di fay te xamuñ ni taxawaayu xutba bi mooy ñaari ràkkaay yi nga xam ni mooy mottali tisbaar bi ñu bari xamuñu loolu taxawaayu xutba bi bu jumaa jotee nit ñi ñëw dugg malaaka yi ñuy njëkk ku dugg ñu bind sa Ibrahim Ceerno Njaay dugg noonu lañ koy bindee première heure bi ku dugg si da am tuyaaba bu tolloog gëléem tukkal ponkali gëléem ndax ñëw nga première heure nee na heure bi dangay ngay am tuyaaba mel ni ku yëkku rey yëkkëb nag toj ko siddile ko saraxe ko troisième heure bi mel ni ku rey am kuy quatrième heure bi mel ni ku rendi ganaar ab siq dernière heure bi nag mooy ku mel ni ku jël ab nen saraxe ko lan moo la téye woon sa kër naa jaay ba ci kanam naa toog seetaan télé ba ci kanam naa continuer film bi may seetaan ci internet ba ci kanam non naa bàyyi ba imam di pare ma doog a ñëw déedéet déedéet jàkka da ngay a dem nga bokk ci ñi ñu njëkk a xanaa xamoo séddale ca kudd yu njëkk ya tey nag ñi gën a jege ñoo gën a am problème ndax ñàkk a dégg diine moo leen jàpp ba ñu sori di ñëw ñoom ñuy doog a ñëw ndax dañoo jàpp ne mbir mi jege la déedéet du jege de mbir mi ci waxtu yi ñoo compte ki dëkk ci gi ak ka ca àll ba ñoo bokk benn atte allahuma lu ka ca àll ba am na lu mu koy tanee ndax dox bi muy dox dana ko ko tanee mbokk yi nañu xam ni julli ndaw ñi da ngeen a war a góorgóorlu ci julli góorgóorlu leen ci julli boo duggee ci marché yi ci àjjuma yi sa yaram day daw sa yaram day daw xutba naa ci benn marché bu mag ci benn àjjuma xutba naa daanaka bay waaj a julli bi ma gestoo ba sëlmal laa gis ne nekk mbooloo mu toll nii ñu ngi ci yàq ji mais li may xutba gisuma sax ñetti sàpp ana commerçant yi ñu nekk dañuy jaay ba pare mbokk yi njaay mi ut alal la lan moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam بروم بي نيكو واذا راوا تجاره او لحوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين دا نيك سي بلاك بي نانا جاي با سي كانام دوغو جولي جي واذا راوا تجاره كون كوميرس جي موتاخ naa liggéey ouvrier bi ci kaw di liggéey non damay bàyyi ba imaam yéeg ma doog a wàcc yow santuñ la loolu da nga waroon teel dem naa nëg ba àggale ma doog a sangu naa nëg ba def nangam mais ajjuma ku ko xam ak tuyaaba yi ci nekk wallahi loo liggéey ba mi di jot ne ko fa ñëpp teg ko fa ba julli ba pare mais mënu la yàqal mënu la yàqal même boo ragalee yàlla sax même boo ragalee yàlla laa wax ne ñi nga nekk sax bàyyi la dem julli xamul tax loo leen xas-xas ci mbon ñu raw la ci julli loolu moom euh, gis nga bu julli jotee waxuma àjjuma de bu julli jotee boo demoon Arabie Saoudite wala nga dem ci yeneen dëkk yi bu déggee nodd commerçant yi ñéppay teg njaay mi génn dem dangay wax ak nit mu war la jaay wallahi léegi laa ilaha gayru dal na ma dal na ma ci wetu masjid ibn Laden bi nekk ci màkk maa ngi jënd valise bi ñuy waree ñibbisi fi ma taxaw di jënd valise nii ndeke noddu lañ dama jékk rek gis gardien bi ne hayya ala sala hayya ala sala ñëpp jóg dem ma jóg ànd ak ñoom kenn da ngay dox gis bitig yëpp ubbeeku ñu muur ay morso ñëpp dem julli yow da nga fii toog su ma demee ñu sàcc ma effectivement xam nga foofu moom sàcc du fa am du fa am mais ñun ana na ana ñun ak julli li ngay liggéey góorgóorlu ci yow mbokk góorgóorlul jógal soo demee ci marché yi julli da ngay rus patron bi rek mooy jóg julli ji ñu ci des ay liggéeykat lañ waa gardien yi du ñu jullit comptable yi du ñu jullit ñi nekk ci bërëb bi du ñu julli ku dem julli ñu ànd yow war a julli ubbil leen bunt ñu mën a julli loolu du la yàqal dara mbokk julli lii yàggul tollul ci ñetti fan ñaari xale yu jigéen dañu ma seet si ànd ak benn góor benn góor lañu àndal du xale de daanaka loog man ñu nag day xar ñu toogee kenn ci doom yi ne ma oustaz ma ne ko naam ma ne kii de suñu papa moom lañu indi dafa feebar waaye mboolem problème mu àdduna bi daf ko da koo dajale mboolem problème mu àdduna bi suñu papa ji daf koo dajale ay jafe-jafe ay fitna yu dul jeex du jubóog kenn kenn du jubóog moom moom daal wax a wax ba pare ba pare ne mi ngi feebar yoo xam ni dañuy dem hôpital mais duñu gis dara ñun affaire bi daf ñu jaaxal ñu ñu beneen doom bi ne liñ ci jaaxal mooy suñu papa bunt bu mu fëgg rek bunt bi day tëju moom daal amul dara dara lu mu mën a taxawal loolu sotti ma ne ko ah góor gi mu sigg ne ma naam ma ne ko lu xew sa doom yi li ñu wax nag waaw ah, li ñu wax lépp day loolu moom moo am ma ne ko waaw noo def ak julli dama ko gis rek yàlla defal ma tawfiq ma posé question boobu dama koy posé ñu bëri ci ñuy ñëw ci man ma ne ko nan nga def ak julli mu noppi ma ne ko yow laay wax nan nga def ak julli di ngay julli wala dooy faral di julli mu noppi bi mu noppee ba ci yàgg doom ji ne ma oustaz sunu papa la moo ñu jur duñu la ko nëbb musumaa gis sam papa mu dëpp ja والعياذ بالله والله بعد خلقني مو خلق نكو بابا دا ماي واخ رك مسوما لا غيس نجولي بابا دو جولي والله الذي لا اله غيره دوم جي واخ بور جي نكو مسوما لا غيس نجي دك سجي بي nga julli mani subhanallah gor gi deng liñ wax yow julit nga wala do julli mané mo waw julit la mané julit budul julli mu ne non c'est que xam nga xaw ma ko quoi subhanallah wallahi doon na xaw ma ko quoi subhanallah ma ne ko ah lu la yëkkati léegi mu ne ah li sama doom yi wax wallahi mi ngi ñuul kuk kuk mbokk yi ku dul julli da ngay ñuul da lëndëm da salte ku la gis xeeb la da ngay xool leen ñu dul julli nga dajeek ñoom kenn amu ci nuuraanee lan moo tax assalaatu duurun wa burhaan julli leer la leer la boo xam ni leer googu sangu du la ko may diw du la ko may milen du la ko kooku nuuraaniya la yàllaa koy maye soo dee julli sa kanam day ñatatati loo ñuul soo dee julli da ngay am fierté da ngay ubbeeku lan moo tax ala bi zikrillahi tatma innul qulub mu ne ma non man homme de culture laa quoi ma ne ko waaw lan mooy sa métier doom ji ne ma sama papa dessinateur la day dessiné ay tableau di jaay waaye nag bëri na ay problème lool lool man ngaa seen papa kay waxuma la bëri problème ci moom la problème yem ñàkk julli rek dafa doy problème mu ne ah, ma ne ko góor gi bu fekkee da ngaa ñëw ngir faju si mu ne ah, ma ne ko feebar bi njëkk la ñuy njëkk a diagnostiqué pour nga faju mu ne ma ban la mu ne ko julli julli moom il faut nga del billaahi ladi laa ilaha gayru bëri na ñuy ñëw ci man léeg-léeg nga gis rek ma ne diw mu a am ne ko basan mu julli koo gis ma def ko ko rek daawul julli wala xamul julli léeg-léeg ma woo kenn ci ñi may liggéeyal kéel ko na jàpp na nangam na nangam jullit dem ba am 60 ans waaye nag wàcc na la boo ko gisee rek gis nga tikkin jàppakuli benn lañ subhanallah xoolal dama toog dama rus ma téye ko nag ne ko góor gi mu naa ma ne ko nga ordonnance bii ma lay jox mooy bi lay faj soo ko bëggee te gëm ko mu naa ma ne ko jullit nga doomu jullit nga tey ñaaw na lool sa doom toog ne sam musuma koo gis mu julli loolu ñaaw na yaa ngi nii sa doom yaa ngi nii dañuy julli mu naa ma ko loolu nag mooy yuxrijul xayya min al mayyit ويخرج الميت من الحي تاي سين ديغ يالا ген نا سي دوم يي جولي تاي يو دو جولي سا بروبليم ييغا ام دو بروبليم دي مونا مونا كو نياك جولي مولا لندمال غور غور لول نغا توب نغا دلو سي يالا والله كدول جولي دو جامو يالا سي بونتو دي تيجو ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه دنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما شرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت آياتنا كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله أكبر برب ومن أعرض عن ذكري fa inna lahu maishatan danka ku sànni julli sa gannaaw sa dund xat wallahi ladi la ilaha gayru ku caaxaanee julli mani sa dund xat surtout nga nekk jullit lu ndaw a tiital da ngay gént di tiit di yuuxu di daw fekk ay ay jinne ay jinne ñoo lay tiital ak seytaane parce que yow poubelle u seytaane yi nga lan moo tax parce doo julli lu yëngu nga daw lu yëngu moo def nga taxsabu kullu sayxatin alayhim mbokk yi borom bi nee na ku sàgganee julli sàgganee jaamu yàlla da ngay xat sa kanam day lëndëm sa mbir day jafe da ñaan lu fu nekk dara du dox ki dàqa ñaan ci bu la ñaanee jox parce say bunt daa tëju bu say buntu tëjee kenn munta ñaan ba mu ubbeeku yow yaa war a dellu nga defar sa borom jullit day julli li gën a borom bi la mu ca teg wa naxsuruhu yawma alqiyamati ama ki dul julli di fooyee julli buy dekki day gumba yal nañu yàlla musal ci dekki ci bàmmeel gumba li gën a doy dekki gumba nit ñi di gis mu laaj qaala rabbi lima hashartani ama wa qad kuntu basira yàlla lu tax ma dekki gumba te ci àdduna ma doon gis borom bi ne ko kazalika atatka aayatuna samay aaya dafa ñëwoon ñu wax la deel julli nga bañ deel jaamu yàlla nga bañ deel woor nga bañ toppal yàlla nga bañ loolu nga bañoon te xamoon ni mooy dëgg fa fii taxaw nga sànni ko fàtte fàttelu ko borom bi nee na wa kadalika al yawma tunsa na nga fàtte woon la nga waroon def dama santaane ko woon noonu la ñu lay fàttee fii wa kadalika al yawma tunsa mbokk yi asabab limaza tudayiuna sala la jeunesse xale yu góor yi lu tax ngeen di sànk julli lu tax xale yu góor yi presque ñu bëri ci ñoom doo gis ñuy julli lu tax du ngeen jullee ci jàkka lan moo tax xanaa xamu leen jàkka muy bërëb bi gën ci kaw suuf yonent bi nee na inna xayra biqaa al ardi masajiduha nee na li gën ci kaw suuf pàkk bi gën ci kaw suuf mooy jàkka yi wa charre biqaa al ardi aswaaquha pàkk bi gën a yées ci pàkk yi mooy marché yi nga nattale nag xale yu góor yi dañuy dem dansine dañuy dugg grand théâtre lu xew ñu fecc lu xew ñu nangam mais dugg ci jàkka problème la ci ñoom dem grand théâtre fay dix mille jaral na leen dem ci dansine fay cent mille jaral na leen ànd ak jigéen ñi jaral na leen buntu jàkka ubbi dugg fa problème lay doon même boo ko bëggee julliloo mu jéem laa indil ay lay wala iyaadu billah xanaa xamoo ñàkk julli leer na ci yonent bi ne kéefar lay doon yonent bi nee na al ahdu alladi baynana wa baynahum alsalaa nee na kóllëre gi nekk diggante julli ak lu dul julli moom mooy julli kuy julli julli nga ku dul julli nag yaa xam loo mënti doon abdullah ibnu ummi maktum amoo lay yow xale bu góor bi am kenn ci ñun amul lay yow mi dëkk ci koñ bi def jàkk amoo lañ kaay ma nettil la benn silmaxaa ngi nii këram dafa sori jàkk ji doomu bàjjan yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon abasa wa tawalla wàcc mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee ne ko yaa rasulallah inni rajulun darir ne ko man fil la chaashiu daar sama kër dafa sori bu ñu ne chaasi mooy sori taxaw làqatoo bëri ay tàndarma kan te xam nga tàndarma yi car dafay faral di wàcc wa laysa li qaa'idun yulaa'imuni aw ma sax ku may ommat pour mën maa indi ci jàkka fa hal ruxsa ndax mën naa am permission su ma déggee nodd ma jullee sama kër fa hal ruxla ruxsa fi an usalli fi bayti yonent bi ne ko laa ajidu laka ruxsa munuma laa amal benn yomb yomb silma, bu dul gis dëkk fu sori amul ku ko ommat amul ku ko ommat filmax bu dul bis dëkk fu sori yoon wi am ay tàndarma di ko jam yonent bi ne ko aw ma lay ci nga ñàkk julli yow xale bu góor bi waaw portable moo tax nga silmaxa silmaxa nga waaw ligue des champions moo tax julli ji woo silmaxa nga waaw théâtre yi moo tax demoo jàkk silmaxa nga waaw football yi moo tax demoo jàkk yii bu la tee dem jàkk li gën a rëy te nekk lor yonent bi mënu cee téye nit am na riwaaye boo xam benn silmaxa daa ñëw wax ko ni man de du ma mën a ñëw ndax doo ma dima daa sore ñu ne yonent bi ne ko waaw mun ngaa toog muy dem ba ci àgg mu woo ko ne ko awa ni nidaa ndax dinga dégg nodd mun a ko amun nga ah laa ajidu laka ruxsa aw ma lay yéen xale yi góor yi kenn amut lay su ngeen dee petit camp di football ba dégg nodd baleen ko fa ngeen dem julli xam nga nag ki football di teye julli te amoo ci dara yow doo professionnel ab équipe jëlu la kenn fayu la dara nga bëgg sàggane sa yowmal qiyam kenn gënu laa ñàkk fayda xale yu jigéen ñi di leen julli bàyyi leen théâtre moytu leen filmé yi dee dafa gaaw dee dafa gaaw dee dafa gaaw waxtu wi ngay waxee mën ngaa dee léegi wallahi ladi la ilaha gayru waxtu wi ngay waxee mën ngaa dee léegi kon loolu mbokk yi nañ ko bàyyi xel allahuma hadina fi man hadayt yàlla ñu yàlla jubal yàlla ñu yàlla may taw bi ma def benn mbir bu gàtt rek comme na ma ko defee woon mbokk yi waxoon nañ leen fi ne sunu benn mbokk imam jeune imam bu jàmbaar yi ma waxoon yëpp passé na jarul ma ciy delluwaat kooku ñu doon laajal fa lillahi alhamd li ngeen déggoon ma tudd ko ci ay millions am nañu lu ko ëpp alhamd allahu akbar allahu akbar ñu ngi leen di sant mboolem ku dégg sama kàddu ñépp dajaloonan di leen sant ci sama tur mu tàmbalee ci làmmiñam moom mee feebar waroon a faj waaye alhamdulilah yàlla dogal ñoom ay grands spécialistes yu nekk fii yoo xam ni ñoom dinañ ko suivre lu ci jaaju danañ ko def kon ku ci defoon dërëmam yàlla na ko ko yàlla soppil kër ca àjjana képp ku ko jàppale sa alal bokk ci lii ñu def ci moom yal na ko yàlla def ubbi say bunti xéewal yal na yàlla musal ñu ci feebar yi lore yàlla dimbali ñu waaye ngeen continuer di ko ñaanal yàlla may ku wér ndax waxoon naa ne innahu fursaanun min fursaanil manaabiru moom jàmbaar la ci jàmbaaru min bari sant nañu yàlla nag bu baax rabbi an'amta fa zid sant nañ yàlla bu baax waaye man maa gën a sant yàlla li tax ma gën a sant yàlla mooy doomu aadama su ñàkk solo yëkkati kàddu ci millions yooyu ni mu toll ay jullit volontaire u porté volontaire ñépp def Europe bitim réew États-Unis fépp ba yëf yi mat ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di leen ñaanal yéen ñëpp yal na leen yàlla defal buntu tawfiq defal ko ñëpp insha allah qumu ila salatikum yaxfirullahu lii wa lakum asaal muslimin fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim